c'est la référence. kaddu di yàddoo fii ci studio Alioune Momar Lo taaxum kaw ma ñu a duppe Cheikh Imam san Cissé mbokk yi salaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi bu ngeen taaxirloo rek ma jukki leen li ci gën a fës li gën a fës ci xibaar yi nag bokk na ci euh, coupé ci ab dëkk la ma nga ca commune bu Thiaré euh, ci région bu euh, Kaolack foofe nag askan wa jamono ji ña ngay yuuxu wàllu gannaaw itam ba nga xamee ne nee nañu dund ak wér yaan la ñuy dund ba jamono jile ndaxte nag. amuñu courant barabu fajokaay ak jàngeekaay waxi nopp lu ni mel dañ ca dégg noa bi yaay ci njëlbeenu xibaar yi ci jamono jooju nag moom njiitu réew mi mag Macky Sall ma nga woon rek ca diwaanu Ndar Géej doon fa daloo itam li nga xamee ne moo di aéroport international ba mu duppee Ousmane Masseck Ndiaye waaye itam daal di fay tegaale xeer wu njëkk bu ab l'hôpital boo xamee ne niveau 4 lay doon daañu dem ca diwaanu Ndar ci fekki fa suñu ndaw Bara Diop gannaaw ba nga xamee ne seen ak liste bi nag bokkul ci ci élection législative yi ñu euh, dëgmal leen ne waa coalition ànd nawle ànd euh, liggéey ñu ne nag ña ngay xaar rek ku leen euh, ngoros yi te it nag loolee lépp bu ñu ca àggee daañu ko teg rek ci intérêt Kaolack Serigne Mboup daañu ko dégg ci ndimbalal Cheikh Babacar Dieng seen rubrique jàngandoo ci beneen anam nag ni ki tey jii ñu waxtaane rek li nga xamee ni moo di taxawaayu député bi te pencum ndaw réew ma bu di lépp yembe mbokk yi daañu ca teg xabaaru bitim réew tàggat yaram ak li ci mu nekk li gën a fës ci euh, xibaar yi nes kis ñu indi ci faram-fàccee. Le journal Ngoné Ndiaye Reine. Euh, ci kàddu gi euh, fego ci ak Haj euh, Libaas Mbay ci wàllum xarale gi xibaar yi nag dañu koy doore rek ak ay leeral gannaaw itam kàddu yi nga xamee ni waa mbaaru banaana yëkkati woon nañu ko rek ni ki démb doon ñaxtu jëmale ko nag ci kanaal yaa yaak melokaanu barab ba jàppaleen ne itam ne ñi nga xamee dañoo yoroon liggéey ba di waa GIE ñoom nag weddi nañu ko ba mu set na xibaar ya ñu joxe mu Mounirou Faye andi ci ay leeral ci micro Cheikh Tidiane Diagne. bon jógee eh, biir Kaolack nekkoon côté marché central bi ñu nekkee marché central doon kiire ba mu yegg ñu mu jeex ñu gën dem beneen zone actuellement ñu ngi deuxième pont premier pont fii miir na Mbaba benn équipe bi ñu nga côté gare Nioro bon léegi nag dama toog léegi di déglu journal Alfayda comme sama rajo la ma di ko déglu dégg benn information boo xam ne dañ ne waa marché central mbaaru banaana seen canalisation ba fa ne dafa bougé ba kenn amul foo jaar mu nga fees dell ak ndox plus de trois jours ngi ñu di ko dindi ko doon defar nag waa kër karaay lañ def nañ fa trois jours mënu ñoo fexe ba génn ko dara newu fa lépp a ngi wow koŋ mbaaru banaana amul benn kii fa ne ndax man maa fa demaat léegi wër foofu yëpp gisuma ma attaqué ña fa ne canalisation bi ne leen pourquoi yéen ngeen dem Alfayda déclaré ne ndox mi dafa bougé loolu daal moo doon kaar liggéey bi lan ngeen fa liggéey kañ ngeen ko defar yow tey pépp ndox amu fa lépp defar nañ ko am baax équipe lañ fa yóbbu woon bu mat ñoo ko kiire ba génn Sonatel continuer wuti géej jaar SNC dafa liggéey bu mucc ayib nettoyé foofu yëpp kiire canalisation yi wër marché bi ak biir marché yëpp ñoom waa marché yëpp nangu nañ ñu génn marché bi continuer jël place taxi yi continuer wuti géej canal bu gudd boobu ndaw boobu noonu jaar usine si jëm géej ñu kiire ko ba biir port lépp ñu kiire ko ndox mi dem amatul benn pepp ndox benn ndox newu fa mais est-ce seen liggéey bi nekkul moo yéexoon gars def euh, alerte boobu non non ñun période booy xool liggéeyuñ ko lu ma deux semaines une semaine daal vingt dix jours daal romb ko liggéey bi yëpp biir marché bi yëpp rombul dix jours fenn fu am ndox amu fa mu ne neex ngeen dem lépp xool waaw amul fenn fu am ndox waaw mairie moo ñu ko jox pour ñu kiire Kaolack équipe bi ñaata personne la équipe bi mat nañu vingt et nekk jaleñ fi may wax ak yow nii am ñu nekk côté marché am ñu nekk kaneen su ko euh, ñu daal di euh, tàbbi rek ci euh, jafe-jafe askan wi lii itam maa ngi leen ko doon junju coupé ci ab dëkk la ma nga ca commune bu caaree ci région bu Kaolack bi foofee nag daanaka dara ba dara booloo jeex amu fa amuñu courant dispensaire ak CM waxi noppi lu ni mel nag moo tax askan wa jamono jile daal di mere lool njiitu réew mi Macky Sall ak nguuram nee nañu sax day am na lu ñuy daas fanaanal eh, ci législative yi ñu dëgmal noa bi ay kuppe ci dëkk la fi ci commune bu caare région bu Kaolack lu war a yóbbu développement ci dëkk bi amul askan yi fi nekkee amuñu électricité depuis indépendance ba ci fay moo doon wax si tur askan yi. kuppe ba mu sosoo dafa yàgg bokk ci commune bu Thiaré bokk ci nekk village ñetti quartier yëpp ñu tuddee leen benn coupé am population bu takku am na foo xam ne fii nunu ko la toujours ñu gis loo xam ne lii ñun ñoo ko leen gën a yeeyoo te wax dëgg ak yàlla jotaguñu ci comme nag euh, jotaguñu ci te ñu bëgg cee jot te toujours ñu laajtee li moom moom lañ soxla mooy euh, benn li njëkk mooy courant suñu école bi ñoo ñoo ngi ko fondé les années quatre-vingt à nos jours gis ngeen ni mel àll kese la amul sax bant boo xam ne bii mun nañu koo taxawal ñu ne commune ko def wala arrondissement ba ko def wala département bi moo ko def wala politicien bi moo ko def soxlawul sax di wax waxu politique. ci fekkente ku pecc dafa bokk dëkk gën a am askan ñu war a fajji. parce que tey jii bu bu baax la ñu amoon. konoon bi du am. li ñu soxal mooy lu ñu am. loo xam ne lii képp koo xam ne kii jaar na fi gis loo xam ne lii ñun ñoo ko ñaan ba am ko yàggoon nañ ko di ñaan amuñu ko. donc bu ñu muñee muñ mun a bool bi bu peesee daw bu du caare moo fi ëpp effectif donc kon war na am moderniser suñu xale yi tey tey tey ñuy def BFM tey seen papa ñoo yore machine yi ak ngoos yi booba kañ lañ jëmee loolu góor gu ci ngoos yi tey ren déwén ñu ne dafa fatigué ñu ne anamu ñu ne suuli nañu ko doom bàyyi jàng bugg nañu ñu koy wax CM bugg nañu dispensaire askani ku pecci li ñuy wax mooy nii dootuñu gomm promesse politicien yi nekk nii ci fekkente dëkk bi amul courant. jaajëf euh, Noa Biaye waaye nag ku pecc la ñuy euh, wax su ko defee itam ñu daal di wéyal ba tey rek ci xibaar yi ci jamono jooju nag jàppale. leen ne moom nag njiitu réew mi euh, Macky Sall ci ay bés yi ñu euh, génn ma nga woon ci euh, diwaanu Ndar géej ci ab tournée bu mu fa doon amal daal dina fay daloo nag aéroport international ba mu duppee ma Masseck Ndiaye daloo fa ab digue de protection ba ca langue de Barbarie waaye itam daal di tegaale xel wu njëkk bu ab l'hôpital boo xamee ni itam ne niveau 4 lay doon waaye itam dig na leen ay réalisation Ndar géej la ñu jëm fekki fa suñu ndaw baax a jóp jërëjëf ci teewaayu mbooloo mu takku lañu ñu njiitum réew mi président Macky Sall file ci diwaanu Ndar naka mu wàcc ci aéroport international Ousmane Masseck njaay bu diwaanu Saint-Louis mu wax mbégte mu mu am ci diwaanu Ndar Géej. dëkk taarix ngeen te Ndar dafa am importance ci ñu jëm Ndar saa yu ma fi ñëwee ginnaaw bëgg bu ma bëggal sama bopp Ndar gunge leen ci ay réalisation gunge leen ci ay infrastructure gunge leen ci ni tabaxee Ndar bu bees également procédé à l'inauguration de l'aéroport international Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis. gannaaw gi beneen liggéey bu am solo mu te xeer bu njëkk ci hôpital régional bu diwaanu Saint-Louis nekk hôpital bu njëkk ci réewum Sénégal ci niveau mu daldi xamle ne hôpital bu nar a méngoog jamono la ci wàllu équipement. mooy hôpital bu mucc ay ci ay xarala ak ay équipement su paree bu dàqul ci Sénégal nee na ci ñaar yi gën a am solo ci wàllu kër docteur lay def ci réew mi. ba nëgë ni bàyyeegut askanu diwaanu ndar géej ne fileeg diwen dong liggéeyug teer gi jógee capitalu réew mi ba ci diwaanu ndar géej dina tàmbali. gaar bi mu ngi ñëw ci yàlla ànd déwén lañ koy tàmbali yàlla nañ ko muurloo Sénégal muurloo ak Mauritanie. beneen xew-xew bu mag bu mu dalloo tey jilee muy digg de protection bi nekk ci langue de barbarie. langue de barbarie dafa amoon jafe-jafe ni muy avancé ak dossier ñu taxawal leen fii ginnaaw bi ma fi ñëwee ànd ak président bu France ci atum 2018 ñu ne dinañu def barrière boo xam ni dana protéger Guet Ndar ak toute la langue de Barbarie looloo bi ma gisee liggéey bi léegi bu nekk liggéey bu am solo ndax gis ngeen ne plage bi mu ngi dundal kon arrêté nañu progression géej gi mu des waa Guet Ndar na ma ñaan nañu ñu yeggali mbir bi mu dem ba ci Caaka Njaay tax na yenn ci ay kër daañu leen déjjati fa ñu nekk site bi ñu leen fas yéene yóbbu muy dëkk bi di jóg pël moom président de la république Macky Sall jot na faa jaar mu xamle ne deux cent quatre kër daañu ko fa tabax ci fàttali centre yi national bu diwaanu Saint-Louis mu war a nekk kërug docteur gu njëkk bu toll ci niveau quatre yaatuwaay bi moo ngi toll ci vingt-sept mille mètres carrés capacité am war a def lu toll ko ñeenti téeméer. téeméeri juróom fukk nekk ay lalu VIP délai ba nag ci wàllu liggéey bi moo ngi war a toll ci fukki weer ak juróom-ñett Saint-Louis Alfayda FM Bara Diop. ngi déglu xibaar yi ci Alfayda FM ngeen di euh, wéy euh, ba tey nag di fi taataane ay xibaar yu euh, wér te wóor si nañu nag ci ponk bi ñu jagleel campagne électorale bi ci wàllum campagne boobee sax jàpp leen ne jamono jile nag département bu Nioro yëngatu na ab ndaje mu rëy nag la ñu fa doon amal rek ci commune bu Kër ma Madiabel ñoom nag responsable politique ya fa rek benn bokk yaakaar ba nee nañu daal njiitu réew mi Macky Sall li mu def ci réew mi nag dalee ko ci sengoor ba ci Abdoulaye Wade amul kenn ku ko fi def. ba tax na sax ña nga doon jokkalante ay kàddu eh, ci rek nees mën a def nag ba door fa ku jëg politique bi door yu métti yoo xamee ne du gis biti leeral gi ak Cheikh Ababacar Dieng. kër ma jibeel nag ci la mboolem responsable yi ñooro dajee ci woon ci buntu kër Alaaji Moustapha Niass moom sax mu ngi woon ci biir mbooloo mi ci fii meeru kër ma jibeel jàpp ne ñoom ñii nag seen nelaw fi mu ne jeex na ñaari yëf la ñu bëgg Abdoulaye Diatta. may wax waa kër ma jabel mooy fexe ba département Nioro gagné gagné bu leer waaye mooy fexe ba Kër Madiabel réaliser ñaari mbir taux participation bi gën a élevé waa Kër Madiabel sas nañ leen ko pour ñu delloo ko njukkal président Moustapha Niasse. wooteem bii nag dafa mel ni ndaw yi ñoo ko njëkk dégg ñoom ñu ne lu jiitu campagne bi commencé sax fekk na leen ci terrain bi ñu ngi dox ñu ngi wax ant Dieye moo jiite ndaw yu Benno Bokk Yaakaar yi ci département bu Nioro responsable la ci AFP. gis nañ ne Benno Bokk Yaakaar la ñu nekk monsieur le président dama la bëgg a xamal ne avant campagne yi di commencé jeunesse Benno Bokk Yaakaar jóg nañ commencé dama la bëgg a xamal ne avant Macky Sall di wax ne choisir na ñun pare nañ takku defaruwaat pour defar suñu leader yi dama bëgg ñu xam ne kuy door man kuy saaga te président Macky Sall bi fi toogee ba tey li mu def nit ñi teg nañ ñoom ñii nga xam ne benn département la ci région bu Kaolack seen activité yi gën a rëy moo di mbay ak sàmm jàpp nañu li ci nguuru Macky sàll def mille neuf cent cinquante ba tey ab gouvernement mosu koo def ci agriculture Abdou njaay maire bu Kër Maba Diakhou. na leer ne li mu def ci mbay mi benn président. musu li am ci réew ci département Nioro bi musu fee am électrification rurale li fi bi musu fee am tali yu ñuul kukk ndakaaru dëkkër waaye lu ñuul ci soow mi ci biir nag moo di ki fi nekkoon jamono maire bu Médina Sabax te ba tey jii muy PCA bu CICES dafa jàpp ne département bu ñooro arrondissement bu Médina Sabax moo ci gën rëy waaye joxuñu ko cër Ousmane Gueye Médina Sabax est un cas ñu wax ñu bañ koy wax y'a aucun investi l'arrondissement 28 de l'électorat du département la commune de Mekhe à elle seule de loin le a pas de DG de ministre il rien est-ce que cette question d'exclusivité a été prise dans l'évaluation dans la stratégie Benno Bokk Yaakaar ni mu investir ci departement bu Nioro gi nga xam ne moo di kër AFP te de liste benn bi PS la bokk muy Alimane kañ ko bokk ci APR suppléant wu Alimane mooy Ablaye Diatta meeru Kër Madiabel moom it APR la AFP nag cëram ci bile liste mooy suppléante la. jaajëf ca euh, ndaje moomee nag Cheikh Babacar Dieng Abdoulaye Diatta ma nga xamee ne mooy meeru dëkk ba jël na fa kaddu daal di kañ nag liggéey ak taxawaay bi nga xamee ne seen ko mentor bi di Moustapha ñas def na ko ci réew mi boole ko itam di wax ne bu ñu amee ndigalam gannaaw gi lii lépp muy élection yi daañu ko sargal defaale ko la ñu tuddee maire honoraire ngir nag delloo ko njukkal la mu yeyool Abdoulaye Dieng. ma bëgg ci jukki rek le président Moustapha Niasse barke démb la achevé dix ans à la tête de l'hémicycle ñëpp seede liggéey bu rafet bi mu fa def ba président de la république sargal ko njukkal ko fukki at yoo xam ne nii loyauté la fa nekkee woon compétence la fa wone le sens du devoir la fa wone président jërëjëf jàngal nañu une leçon de la république loolu nag bu ñu ko déggee ci biir campagne électorale bi passé dama bëgg fàttali ne la ministre de l'assainissement et de l'eau ci campagne électorale bi def ñu waxoon su leen yàlla dimbalee ba ngeen gagné organiser leen benn conseil ngeen délibéré ngeen jël président Moustapha Niasse ngeen def ko maire honoraire monsieur le ministre xol bu yaatu boobu nga am xalaat bu leer boobu nga am man en ma qualité de maire nangul nañu la ko dinañu délibéré dinañu ko def maire honoraire incha allah mais duñu yem ci loolu waa Kër Madiabel bokk ak président Moustapha Niasse dëkk bi monsieur le président ñaan nañu la bu élection yi passé la sargal a a a kër Madiabel tey loolu njukkal pour li nga defal waa kër Madiabel pour li nga def kër Madiabel ak pour man li nga ma defal en tant que maire président ñu ngi lay ñaan loolu dinañu immortaliser sa tur fii ci kër Madiabel ba ku fi ñëwati jusqu'à la fin des temps dina xam ne un grand homme est passé mu tudd El Hadj Moustapha président gis naa ñi ngay jàppalee kër Madiabel bi ma nommé maire ak léegi boole nga ma ak ay nit ñu am solo au plan international wax ma nañu ay projet ñu ngi ciy liggéey wax ma nañu délibérer ay espace wax ma ne dinañ transformé Kër Madiabel te gëm naa ko wan nga ma dinaa ci taxaw dinaa leneen te itam loo xamee ne nee nañu nag daañu te xar rek seen ak tànk tubéy mooy naka fexe ba ku jekk politique bi jël jaaxaan ci kanam njiitu réew mi jaare ko ba tey rek ca seen ak jotaay boobe moom meeru Kër Maba di Abdou njaay yekk na fa nag lu mel ni xamee ku jekk politique bi rawatina kii di Ousmane Sonko lu ko jiitu ma nga doon soññu ak ñaaxaata ndaw ñi ay kàddoom Cheikh Babacar Dieng moo ko taataan. loolu la lan moo ñu fi daje dañu dem ay élection waaye li gën a am solo ci ay élection mooy ñan lañu tànn pour ñu jiite élection yooyu ñu jëm candidat yi Sénégal yëpp yu ñooro yi ci gën kon résultat bi am yu ëllëg ci Sénégal na ci yu ñooro gën le bu ëllëgee ministre yi yokk directeur yokk ndaw yi mën a am lu ñu soxla jigéen ñi mën a am lu ñu soxla dégg naa léegi Ibrahima Dieye mu ne président na dimbale ndaw yi d'accord na te dana ko yokk mu ngi koy ndaw day ku ci takk fit yaakaar ku dul sunu borom nangoo liggéey gëm ma gëm respecté mag ñi jox cër wayjur yi mag ñi yërëm leen puus leen ñu jàll waaye bu mag ñi toogee di ndaw yi di xuloo ak a xeex ak xastante ak a fukki junni wala leen cay bàyyi rek tey dem ca de comportement bu ñu kenn sànniloo ku ko wax yow yaay góor jigéen bi yow miñ fekk ci néeg ci couvre-feu ngay violer ay jigéen di taal réew mi pour yore ko jaxase Macky Sall ak waa Casamance li Macky Sall def Casamance ci ay tali ci ay forage ci ay bateau yu bees jeune bu ko président yëpp defoon xeeru Casamance jeex na bu yàgg kon su demee Ziguinchor fa kastalu ba nekk maire utiliser waa Ziguinchor pour toj réew mi ñun waa réew mi dañuy laaj du Moustapha Niass mii mooy xeex ak moom du suñu kilifa yu baax mi ñoo xeex ak moom waaye ñun ñoo war a dugg sur le terrain expliquer nit ñi leen ay góor jigéen ak yàkkatankat ñoo bëgg a remplacer Macky Sall te duñu ko loolu mu nekkoon ay kaddu yi Abdou Ndiaye mi nga xamee ne mooy maire bu Kër euh, Maba ñu des ba tey nag ci langu ko politique bi moom nag njiitu réew mi Macky Sall teraanga ak ndomboy tànk yi nga xamee ne defal na ko doomu Saalum yi doy na sëkk rek ngir ñu jël ndam li teg ko ci ay loxoom loolee nag jàppaleen ne du samay kaddu moom njiital Kaolack Nouvelle Vision bokk ci coalition euh, benn Bokk Yaakaar bi ci Kaolack moo ko doon xamle moom nag Ahmed Youssouf Bengeloum euh, door na campagne am doon fa woote wàlle itam ngir benno bi gën a euh, dëgër euh, Cheikh Tidiane Diagne. tàmbali na campagne électorale bi moom président conseil départemental bu Kaolack di Ahmed Youssouf Benjeloum ci ab jano bu mu doon amal ak taskatu xibaar yi fi nga xamante ne moom moo di ki siège bu Kaolack nouvelle vision ci quartier bu Sam Kaolack président Benjeloum kàddu gi la njëkk a jébbal responsable yi nekk ci coalition Benno Bokk Yaakaar. président de la république fii ci Kaolack gis ngeen teraanga gum ñu defal lu mu investir ci listam yi ci Kaolack mun naa ne bëriwul fu mu ko investir tête de bi Kaolack la donc loolu rek doy na ñun waa Kaolack ñu dajaloo ñun ñëpp ñun responsable yi ci ginnaawam pour mu am cette majorité là kon xam nañ ne unité bi fii nii Benno bi à Kaolack c'est une réalité loolu nag su amee yàlla def na ne ñun joué nañ ci rôle bu am solo muy rôle de médiateur bi nga xam ne ne madame la ministre Mariam Sarr moo moo ñu ko dénk booloo nañ waaye tamit nañ jàppalante suñ biir solidarité ci lépp képp koo xam ne ne gis nañu song benn candidat wala benn leader ci ñun ñun ñëpp nañ mànkoo défendre ko jàppale ko yar ak teggin ci militan yi kàddu yu ñagas ak yu ñaaw séentuwuñu ko ci ñoom waaye tamit fexe ba dugal ci bopp askan wi liggéey yi nga xamante ne président Macky Sall def na ko ci réew mi loolee la ñuy xaar ci militant yi Ahmed Youssouf Bengelloun. saagaak wax lu ñaaw nañ ko bàyyeek ñi nga xam ne ne amuñu benn programme xamuñu mënuñu lu dul wax ju ñaaw ñu muy lan ñi nekk ci beneen langue gi ñun nañu wax wax ju rafet wane suñ président réalisation yu am solo yu muy def ndax nag wax na ko wax moo gën a yomb jëf te moom mu ngi jëf lépp lu rafet yi muy jëf nañ ko wane nit ñi ndax bu booba sénégalais xam ne kii jar na jàppale ren du ay meeting du ay folklore conformément aux directives du parti ak de son président ak de toute la coalition mbir mi ay porte la suppléant bu Pape Demba Bitèye bii nag woo na naataangoom bi nga xamante ne ñoom ñaar ñoo bokkoon dem ci élection locale yi di Serigne Mboup mu ñëw jàppale coalition benn Bokk Yaakaar ci élection député yi lée mon frère Serigne Mboup que je salue de passage di ko tàllal loxo ne ko mu ñëw jàpp ci combat bi ndax xam naa ne ku bëgg dëkk bi la te gis na lu président di liggéey te gëm naa ne patriote la maa ngi koy ñaan mu xam ne ne le bon choix c'est le président mu ñëw jàppale ñu Ahmed Youssouf Benjeloum nag ci ndege mi nu mel wax na fi tamit ne askan wi nañu xippi seeni bët daal di xool votel tamit liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar ndax ñoom ñi ñu tànn bu ñu demee ci pencum ndaw réew mi lépp lu soxal Kaolack dinañ ko fa wax. Euh, bëgg teewal Kaolack googee nag a Tidiane Diagne euh, tax na rek ma nga doon daagaan baatu askan wi doon wax li tax li nga xamee ne moo tax ñu war a votel Benno bi nga xamee ne mooy coalition bi gën ci Sénégal moom itam Ahmed Youssouf Bengeloum daal di cay ñambaasaale rek ne weddi ak gis bokk ci njiitu réew meek réalisation yi nga xamee ne def na ko ci Sénégal gaaral na fa nag ku jekk politique bi ne ñoom itam dañoo bëgg a taal réew mi ay kàddoom ak Cheikh Tidiane Diagne. ci élection yi coalition bu jar a mooy benn bokk yaakaar mooy le président de la république le président de la majorité Macky Sall dafa nekk di liggéey liggéey bu am solo ci Sénégal ba change xar kalam positivement ñëpp gis nañ ko ci infrastructure yi hôpitaux yi wane nañ ko autoroute yi wane nañ ko terre yi wane na ko stade lépp lu mën moo ngi koy def pour que quotidien sénégalais yi di gën a amélioré wu ak di yokk seen pouvoir d'achat kon kooku ku mën a jàppale la loolu tax ñu koy jàppale waaye nag taxaw bu mu taxaw ci ndaw yi tamit lu am solo la chantier yi muy lancé yépp ndaw yi ñoo ci liggéey donc moo tax ma ne réalisation yu am solo yooyu il faut que ñu permettre ku mu am possibilité continuer ko moo tax ñu war ko jox une majorité plus que confortable à l'Assemblée pour mu pouvoir dérouler waaye beneen raison bi tax mooy Sénégal bientôt dafay nekk un pays producteur de pétrole et de gaz pays producteur nag dafay soxla stabilité tey nag si stabilité boobu moo nekk en mbokk yi ñii ñu jàkkaar lool ñu ne dañoo bëgg saboter élection yi wala boog dañ ko bëgg xañ majorité blocage lañ bëgg indi ci dëkk bi ndax cohabitation ñun amuñu coutume di ko dund te gëm naa ne Sénégal incha allah loolu duñ ko dund suñ ko indee mën a nekk source d'instabilité te instant yi Sénégal dëkk stabilité la tey lañ ko gën a soxla te loolu nag ça passe une majorité plus confortable pour le président ndax mu mën a dérouler opposition bi nag ñi nga xam ne ne mairie rek lañ gagné di jéem a bloqué dëkk bi bés bu ñu leen joxee assemblée nationale dara dootul dox te su instabilité amee ñun ndaw ñoo ci njëkk a kon boo ndaw yi dama ne bu leen nangu kenn di leen manipuler ñoom nee nañ bloqué dëkk bi rek ba président du liggéey fii ba 2024 loolu moo leen tax a jóg kon boog ne leur donnons pas ce moyen là et cette possibilité la yéen ñëpp dem leen jëli seen carte ngeen bañ ko leen manipuler voté ki nga xam ne ne moo fi nar a saxal teraanga nar a saxal yaakaar muy le président Macky Sall. mu nekkoon ay kaddu yi Ahmed benn Bengelou mi nga xamee ne ca geneen wàll ga mooy njiital conseil départemental bu Kaolack bi waa coalition naataange askan wi ñoom itam ñu ne nag bëgg nañoo daagu rek ca pencum ndaw réew ma ñu ne nag bu keroogee bu ñu leen falee wàllum yoon ak lépp loo xamee ne da koy ñoŋal dina bokk nak ci li ñuy njëkk lijjanti fii ci Sénégal ab ndaje la ñu doon amal ca diwaanu Ndakaaru Arona Niang moo tax seen seeni kàddu. mbokki Sénégal ñun waa coalition naataange askan bi ñoo dellu si waat tey ngir waxtaan ak yéen tey nag li ñuy waxtaanee mooy l'indépendance de la justice mbirum àq ak yelleefu doomu aadama waaye ñu koy njëkkee ci ñoo xam ni ñoom ñoo jiite le corps muy les magistrats bés bu ñu yàlla dimbalee ñu dem à l'Assemblée nationale la coalition naataange askan bi dinañu revaloriser salaire u attekat yi nekk dans les tribunaux muy ci département yi muy ñu nekk au niveau des régions muy ñu nekk au niveau des cours d'appel muy ñu nekk aussi au niveau de la cour suprême ngir kenn ku ci nekk fi ngay exercé sa liggéey nga mën ci gis sa bopp su ñu jëlee ay réew yu mel ni États-Unis xam nañ ni attekat yi fa nekk ñoom dañu am lu ñuy bénéficier mooy ñoom suñu demee ba toll ci benn station bi génn àdduna rek mooy tax ñu bañati exercer seen métier lu mel noonu nag dina bokkit lu ñuy proposer fii au Sénégal lu ko américains yi di waxee the right man of the right place l'homme qu'il faut à la place qu'il faut beneen bi mooy mbirum greffier yi ñoom nekk nañ aussi un corps boo xam ni dañ leen war a renforcer ndaxte lépp luy décision de justice gis nañ ni que greffier yi ñoom ñoo ko yor ñoom ñooy accompagner les magistrats ci liggéey gu am solo bu ñu nekk di def ba léegi ci corps justice ñu xoolee ñu ñuy woowee les avocats am na benn fonds spécial bu ñu leen alloué waaye ñi ngi demander aussi au moment opportun dinañu bind au gouvernement ngir ñu renforcer avocats yi kenn ku ci nekk ci ñoom war a mën a bénéficier wu ci loo xam ni nekk na ci fonds yooyu noonu yu ñu jagleel réewum Sénégal su ma jógee ci mbirum attekat yi na may dem ci lu ñuy woowee les corps militaires et paramilitaires tey soo jëlee Sénégal lu mel ni suñu l'armée soo jëlee lu mel ni suñu police nationale soo jëlee lu mel ni gendarmerie nationale soo jëlee marine nationale soo nationale ñoom ñoo yor ak ak yelleefu doomu aadama. dañuy euh, dikkaat nag fii ci euh, département bu Kaolack bi waa aar euh, Sénégal itam ci lu soxal rek seenu ko campagne ñoom nag ci ay bés yi ñu génn ña nga doon amal la nga xamee ni moo di ab caravane demoon nañu nag ca marché central bu Kaolack bi la ñu waxtaan ak askan wa nañu leen terto ak jafe-jafe ya ñu leen yeggee lii lépp nag moom Théodore Chérif Montey waxtaan na ci ak El Hadj Oumar Cissé. di gërëm waa Kaolack yëpp di gërëm ma xam ne sawar nañ torop tey nag ñu ñëw pour saafonte ak liggéeykat yi Kaolack Kaolack xam ngeen ne marché central lañ am Kaolack xam ngeen importance yi marché bi marché bi daanaka mun naa wax ne mooy xëtëru Kaolack mooy poumon Kaolack fa la di noyyee boo duggee ci marché bi di nga xam li baax Kaolack boo duggee ci marché bi dinga xam li naqari Kaolack boo duggee ci marché bi di nga xam lu sooxe Kaolack donc fii la ñëw tey saafonte ak commerçant yi waxtaan ak ñoom jox leen suñ bulletin wax leen ne que Aar contrat de législature daanaka boo xoolee ci huit listes yi présent ci jongante bi à Sénégal rek moo ci am contrat de législature ñu tëgg ko ci fukki ponk ak ñeent bi ci njëkk nag ñu jagleel ko efficacité parlementaire bu ñuy wax efficacité parlementaire loolu mooy dañu bugg assemblée nationale am njëriñ li war assemblée nationale dañu bugg mu dakk nit ñu fa yónni ay député yuy tàccu dañu bugg mu dakk ñu fa yónni ay député yuy xaxar dañu bugg mu dakk ñu fa yónni ay député yuy xeex di saaga dañu bugg assemblée nationale boo xam ne yañ fay yónni dañ dem toogal askan wi ndaw yañ fay yónni dañ dem pour tëgg ay charte yu méngóog li Sénégal bugg pour développement yam dañ bugg yónni fa ay ndaw yoo xam ne dañ dem pour contrôler action gouvernementale bi te pour nga mun a contrôler action gouvernementale danga nga war a am liberté moo tax ñu bugg yónni ay ndaw yoo xam ne dañuy toogal askan wi waaye toogaluñ seen bopp toogaluñ parti toogaluñ lépp donc loolu moo tax ñuy ñëw di waxtaan ak nit ñi wax leen ne aar Sénégal de aar moo ko bi aar liggéeykat yi aar ndaw yi moo tax tey ñu ñëw waxtaan d'abord liñ tàmbalee dañ dem nuyu suñu kilifa tàggu leen tàkku ci ñoom ñaan tey ñu ñëw seet si liggéeykat yi bu ëllëgee ñu gën a xuus ci biir dëkk bi. nga gisee réaction askanu Kaolack naka la ñu tertoo aar Sénégal. pour le moment de li ma gis vraiment nit ñi ñu ci bëri kontaan nañ. daanaka man doomi Kaolack laa donc ñëpp xam nañ ma fii mais li may dégg daal mooy ah yow de soxlawul sax ngay campagne parce que sa mandat gis nañ ko dégg nañ la gis nañ na nga taxawee assemblée nationale ci juróomi at yi loolu nag terewul dinaa gën dugg parce que jàmbaar nag boo ko nee yaay waaja dafa war a gën a sawar wuti doole pour gën a mun a mériter confiance bi ñu la jox. lii di aar euh, Sénégal nag coalition euh, gënu ko ci euh, réew mi moo xam ci wàllu tànneef wala sax ci wàllum kàngam yi nga xamee ne ñoo ko daal di sekk bu ñu sukkandikoo ba tey ci ay kàddoom moom Théodore moon Montey boole na ca nag itam doon dikkaat rek ci ponk yi mu jàpp ne bu ñu leen falee war nañu koo xeexal Kaolack ay kàddoom ba tey ak El Oumar waaw mbër mi sax du man mbër mi Oli Camara la tamit mbër mi Ndeye Fatou Diouf la tamit mbër mi Lamine Kebe la tamit mbër mi mooy xale yi ànd ak ñun nga xam ne investir wuñ leen mais ñu am jot am doole am kàttan di ci dugal seen loxo parce que Sénégal moo tax ñu jóg ñu investir docteur Aliou Gory Diouf moo xam ne ñëpp xam nañ ni xam-xamam màccee ci mbirum environnement géographe la fële ca Nioro ñu investir docteur Abdoulaye Diallo fële ca Foundiougne ñëpp xam ni xam-xamam màccee ci njàngale vraiment ay kàngaam ñoo ko seq waaye nag may wax nit ñi jàng dem école taxul nit am xam-xam xam-xam mooy ki nga xam ne dafa jàng ba pare ràññee a Sénégal dañu jàng ràññee moo tax nga gis Thierno Alassane Sall mi ñu jiital suñ nekk suñ tête de liste ñëpp xam ko ci njàmbarteem ñëpp xam ko ci dëgguwaayam ñëpp ràññee ko ba muy bañ signé contrat pétrole yi nga xam ne méngoowuloon ak développement Sénégal ñu gis ci juge Ibrahima Amidou dem mi nga xam ne moom daf ne je démissionne d'une justice qui a ci Thierno xam ne bañ ko dénkee commission comptabilité assemblée nationale daf ne ah man dama war a càmbar compte assemblée nationale ñu ne ko ah, na loolu de moo jaadi kon yow puus si ñu ràññee ci Cheikh Omar Sy mi nga xam ne moo xeex pour ñu wàññi coût yi ci autoroute à péage moo xeex ci littoral bi moo xeex pour que contenu locale bi ñu jagleel ci ay sénégalais man nag ndaw laa ndaw bu ñu yónni woon assemblée nationale ma demoon fa juróomi at yi daanaka dama ne dama doon jàng daje faak koo xam ne ah yéem na ma ki nga xam ne moo gën a tuuti ci assemblée nationale bi ci at muy Marème Soda Ndiaye mu liggéey fa liggéey bu mucc ayib ñëpp reconnaître ko man de su ma doon tànn ci gën a mun ci assemblée nationale moom lay tànn. tey suñu la laajoon diwaanu Kaolack lan la ñuy xaar ci aar Sénégal ci assemblée nationale jafe-jafe yi nga xam ne askan bi duñ koy dund. diwaani Kaolack liñ leen mun a taxawalee mooy que ñu boole leen ci politique publique yi Kaolack daanaka politique publique yi daf ci sooxee yéen a ngi dégg ñu naan ñu ngi réhabilité ay aéroport ñu ngi tabax ay aéroport prioritaire boolewuñ ci Kaolack Kaolack dañ ne dañuy def mise à niveau donc mur la ak piste hangar bi bokk ci quai d'embarquement yi bokk ci donc Kaolack dafa sooxi ci politique publique yi Kaolack dama ko doon wax biñ fi ñëwee def mission d'information parlementaire ci inondation yi taaxut laa defee déclaration bi dama leen ne Kaolack dafa soxla programme spécial boo xam ne ñun évaluer nañ ko mu ngi toll ci quatre-vingt-sept milliards pour ñu def assainissement Kaolack yooyu nag assemblée nationale li koy xeexee ci débat d'orientation budgétaire donc foog nga mun a toog ci péncum ndawi réew ma mun a contrôler politique publique yi mun a évaluer pour mun cee boole Kaolack El Hadji euh, Oumar Cissé nag ba mu noppee ak moom moomee di euh, Théodore Chérif euh, Montey jox na kàddu ga rek waa aar Sénégal ci wàllum taxawaay waaye itam nag jigéen ñekk gëdd ba ñu leen jox ca boobule coalition ak itam li nga xamee ne moo di seen ak mbëbët ñeel ak Kaolack seeni kàddu be tey la ñuy teewlu. comme suñu investir nu ñu ko defee rek noonu lañ ko war defee parce ñun doomu Kaolack lañ doomu Saalum lañ Kaolack moo ñu ñor Sénégal moo ñu ñor ñu bëgg a aar Kaolack aar Sénégal moo ñu jaral ñu dox ci naaj bu tàng bi guddeeg bëccëg pour wax ak askanu Kaolack xamal leen tànneef bi ñu war a def tànneef bu baax la ñu war a def parce que législative lañu wax waxuñ local waxuñ présidentiel bii nii ñi ñuy tànn ñoom ñoo ñuy dem toogal ci pencum ndaw réew coalition ay leaders yu ko composé yëpp c'est des hommes de valeur des femmes de valeur ku ci mel ni Mariam Soda ku xool ci moom rek moo gën a ndaw ci député yi moo ci gën a am charisme te moo ci gën a mën a wax dëgg xoolul ne bennoo wala kenn moo ko dugal ci biir assemblée bi muy wax lu leen neex moom day xool liy logique ak li nga xam ne askan gi moom lañ ko fa tàggee mu koy defee moo taxit bu dem di jot mu xool coalition bi gën ci coalition a góor ñi ñooy gën a bëri mais jigéen ñi macha allah bëri nañ ci arc Sénégal. waaw parce que doo xoolee léegi dëkk bi Sénégal sax laay wax jigéen ñee ko yor dañuy wax ne jigéen yu mën góor fii moom arc Sénégal jigéen yu mën góor rek ka nekk muy Kaolack muy au national di won waa Kaolack ne lu góor mën rek jigéen war na koo mën instance de décision yi ni ko góor ñi occupé jigéen ñi noonu lañ ko war a occupé seen place ci politique dafa am importance seulement que discours yi ñuy am ci wàllu politique te nit ñi duñ ko jàppee dara kenn du ci dóor sa doom mu deñ gis nañ nag ñoom ñu waneen loo xam ne am nañ ci yaakaar yàlla bu yaakaar tas waaw loolu lañ koy dëgëralal rek di ko wax ne ko nañu privilégier population bi nañu bàyyi di naxaate di digge loo xam ne mënuñ koo res à la longue gars yi loo ñu wax politique sax ñu wan la gannaaw waaw waaye maa ngi leen di suivre ñoom de près maa ngi gis loo xam ne daal daaw ma ko gis man Alaaji Malick ñu euh, maa ngi ko doon euh, junju euh, xam ngeen ne nag ne saa bu ñu euh, tolloo fii rek li nga xamante ne moo di wàllu ngoro wante bi ak jaayu wante bi nag day daal di tar lool ci langu ko politique jàpp leen ne nag jamono jile moom njiital àndu nawle àndu liggéey génn na ca tekk tekkaaral ba ma nga doon artu nag ak dànkaafu doon sàkku itam ci ay àndandooram ngir nag ñu am fulla ak fayda sëriñ bupp yokku ca doon wax ne du moom mooy tànnal kenn fa mu war a dem waaye nag lu ci mënti doon rek nañu sa sàmm ak sóoraale intérêt ak Kaolack te it sax nag ñu xaar ku leen ngoro si la boppam ay kàddoom Cheikh Ababacar Dieng moo ko tataan man dama bëgg liberté nit ak boppam danaa wax ma bëgg merewuma kenn ku tànn ne man kat maa ngi dem politique waaye li ma koy conseillé waxuma ci kenn de dégg fenn ñaari xarit kii ne ma nga benn bokk yaakaar kii ne ma nga Pastef oma jota Samba Fall mais ak Ablaye ñooy bokk nekk toujours kay nga fee kay sama yoon newut waaye ne bi nit ñi ñëpp kenn ku ne am na fone li am solo mooy 15 yi nañ bañ a perdre suñ temps ki dem di tëggal nit ñee ka waxal nit ñi ku leen bëgg a jàppale na ñëw fekk leen ci lii mbooloo ma fay daje wax ak ñoom lan lay def leneen li ci des mooy candidat yi ngeen am courage yu ne leen ku bëgg a wax ak ñun na ñëw wax ak ñun lu tax ñu wóolu la sëriñ buuba ma wax ak diw wax ak diw wax ak Sénégal dépassé nañ loolu kenn ku ne sa kër sa biir ne def leen topp mais du ko def li am solo moom mooy ma teg leen ci yoon yoon wu ma leen di teg mooy candidat yi ci bëgg nañ fexe ba xam ne Kaolack kat cette la dara may la dara nga def ko sa poos tant quinze jours mu jeex ngay woote du doo ko jotati amul benn mooy loolu laa leen di di jàppale Kaolack lañ am Kaolack lañ fi gën a dëkk ñëpp parce que genn wàll gi wut ndombal tànk man ak sama morom ak yëpp daanaka xëy na fi lañ dëkk waaye suñu jaboota nga feneen liñ mën a def koy fexe ba dellu si leen fii ànd ak yéen bokk ak yéen lépp waaye da ngay dem monnaie ko dem sa yoon amul benn njëriñ na Kaolack fexe génn ci situation boobu ndax Kaolack mooy locomotive ci Sénégal bis bu génn ci situation boobu rek ndax kenn mënut a xeex parti bu état sëriñ euh, Mbuup ci wàllum ngorowante boobee nag ci làngu ko politique bi euh, ba tey rek ca la ñuy euh, ka nga xam xamee moo nekkoon nag seenu ko mandataire ñoom waa coalition ànd nawle ànd liggéey moom itamit daal dina cay addu la mu xam leen nag mooy ne ba jamono jile ñoom nag xippi nañu rek seen i gët di xool li nga xamante ne moo di profil bi gën pour Kaolack maanaam daal candidat bi nga xamee ni moo gën ngir toogal Kaolack ca pencum ndawu réew ma mbay ngoom lay wuyoo ñu teewli ay kàddoom. waaw ànd nawle ànd liggéey effectivement suñu liste mujjiwul dem ci élection législative yi mais liñ ciy wax rek ñun am nañ ci programme lu ci mel ni programme bi ñu doon waxtaan waxtaanee tey ak yeneen programme yi candidats yi nag ñu ngi fi dinañ xool candidats yi nga xamante vraiment euh, profil la te sawar nañ ci ànd pour defar Kaolack parce que aussi ñun li ñuy def laa finalité mooy Kaolack ñu gisee candidats yi nga xamante ni pare nañu même suñu leen falee jox leen baatu askan bi fas yéene ñëw ànd ak euh, Kaolack liggéey ànd ak mairie bi liggéey dinañ xool lan la ñuy waxtaan ak ñoom ba fii nag kenn ñëwagul waxtaan ak ñun mais ñu ngi xaar mais aussi liñ ciy wax mooy programme bi liñ ci am idée mooy ñu bañ a nit ñi ku ci nekk tëb demal sa bopp li leen monsieur le maire wax leer na nañ ñu def loo xamante ànd nawle ànd liggéey lépp ñoo ciy ànd je pense que suñu gisee ñi nga xam ne pare nañ pour ànd ak Kaolack vraiment ñun dinañ ci xar suñu tànk tubéy ba nga xam ne profil bi nga xamante ni moo ko tax a jóg ñun moom la ñuy soutenir daanaka ñëw na ba pare ba fii moom bu dee amagu leen candidat est que da am waaw xam nga nee nañ y a beaucoup de discussion am na ñoo xam a ànd liggéey am suñu décidé woo mën nañ faire basculer les résultats parce que am nañ les compétences am nañ les militants am nañ le dispositif stratégie bi ñu tegoon ci local yi ça reste d' parce que en six mois dara mënu fi changé suñ ko appliqué suñ dispositif bi ñu appliqué woon vraiment kuñ ci bëgg soutenir kuñ ci bëgg àndal incha allah di nga am ndam bàkk ba nag euh, miin ngeen ko euh, gaaw bu nekk lay am euh, tey jii nag ña nga ca yoonu législative yi ak lu soxal palum député yi poñ yee ñuy waxtaanee nag bokk na ca taxawaayu député bi waaye itam askan wi ak lañuy xaar ci ñoom ca pencum ndaw réew ma yaatal gi ak soxna Ndeye Fatou Cissé. cest askan wi dañuy tànn ñoo xam ne ñooy yor seen baat fa ñuy toogee di nas di noj ak di jël ay décision ñoom ñoo leen fiy toogal. assemblée nationale di yoon wa seen rubrique ci beneen anam di jël tey ci samedi jëlee. fukki fan ak juróom benn ci weeru juillet 2022 ak palum député di élection législative yi nu dëgmal. Euh, seen euh, liggéey mooy fexe ba lépp luy tawat lépp loo xam ne lii xalaat nañ ne moo war a mën a doxal réew mi ñu mën koo indi waxtaan ci ba juboo ci am lu ñu tënk def ko loi muy règle boo xam ne ñiy doxal muy pouvoir exécutif président de la république jiite ko ak gouvernement ñu mën koo doxalee noonu ba nga xam ne ku nekk da nga mën a gis sa popp ci réew mi xam ne say tawat ak say soxla ak say wax am na fa ñu la fa toogal di la ko waxal. d'histoire et de géographie tey ci retraite moom ak yéen ñi nekk kon ci déglu gi ñu leen di wax euh, dal leen ak jàmm. léeg nag ñun moom ni niñ koy gisee leneen la xëj na ci biir waxtaan wi fekk beneen waxtaan danañ mën a gën a dugg xuus ci loolu ba nit ñi xam lan mooy njëriñu député xëj na bu boobaa xeexoo beeg tojante bopp beeg kii bi dana fi mën a jóge ndax sas la te naa ne ku xam sas lan la war a mën a jëriñ ci kuy toogal sa askan jarta tojante bopp jarta xuloo jarta xeex xëj na loolu lañ ci mën a jàppagum pour bi yoon xëj na fekk yeneen waxtaan yi ñëw danañ mën a gën a xuus ci biir assemblée nationale luy njëriñam ba xam ne nit ñi danañ ko mën a jàpp ba kuñ da nga a falu député di nga waajal sa bopp boo fa demee di nga xam noo fay toogee xam ne ñi ci sa gannaaw ñooy sa soxla ah, bu boobaa defe naa ne di nga gën a liggéey li ñu la sant. file nag la ñu yemandeeg yéen ci seen rubrique jàngandoo ci beneen anam. yàlla ne fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum. yàlla waxaat nag ñun feneen ni ragal leen ma man buur bi te yéenal seen diggante ba mu yéen. door ca teg wa atiyu allaha wa rasulahu. andi condition nag teg ca. waaw na sart charte teg ca nag. in kuntum muminina ndegam ay croix yaa ngeen. dëgg loolu lépp nag yàlla nag nee naa lii may wax lépp kat. ndeg gëm ngeen. mu ne wala tanaaza'u fa tafshalu wa tadhhaba riihukum. yàlla waxaat na feneen ni bu leen xëccoo ko ŋaayoo ko werante su ko defee ngeen ñàkk seen kattan perte rek. wa xussisa arrahmaanu bi taqdiimi li annahu axassu min rahim. nee na boo gisee yàlla ni rahmaani. door ni rahimi. te newul rahimi. door ni rahmaan te ñëpp di ñaari turi yàlla. bii li mu la lamb bee da koo lambul rahmaani day wërsëgal ku baax ku bon kàccoor ku yiw ku ñàkk ku am ñépp la rahmaan yi xëy rawitaay waaye rahim nag moom bu boobaa ka soob yàlla dong dong dong dong yaa koy jagoo matalul ñépp moo tax ñu mujjal ko la mag ñi doon jëfe dul dara ci yàlla kenn du yóbbu dara lu mën a jëriñ nee na ña doon jëfee bu ñu yóbbuwul dara fa yàlla keneen ku jëfee leneen doo yóbbu dara fa yàlla dig daje beneen yoon incha allah xabaar yi bitim réew bàkk ba jib na euh, biti réew la ñu euh, jëm Alioune Badara Diop ana foo koy dooree. jërëjëf euh, Ngone Ndiaye ren xibaar biti réew ñu doole ko réew bu Mali bi nga xamante ni dakkal na bépp relation boo xam ni amaloon na ko ak militaire yi nekk foofu ca MINUSMA ginnaaw nag ci mbiru soldat ivoirien yi nga xamante ni jàppoon nañ leen ci fukki fan ci weeru juillet bi ñuy weesu mbir moomu lee ba tey mu ngi jur ay coow ci diggante ñaari réew yi di réew bu Mali ak réew bu Côte d'Ivoire wante ba tey waxtu bi ñu toll nii mën nañu wax ni mercenaires yooyu lee ba tey bàyyi leen loolu waral réew bu Côte d'Ivoire moom def kémtulaay kattanam ngir kat ñu bàyyi seen i doom te nag ci ba réew bu Gambie ba tey ci xibaari bitim réew wax ci juróomi doomu aadama yoo xam ne dañ leen condamné à mort li waral ni mel du ñoom ñi nga xamante ni ñoon def ay ñaawte ci nguur bu yaayee jàmmi doon ray ay doomu aadama yoo ni defuñ dara naam sax mbir moomu la doonoon loo xam ne lu métti askan bi la ba tax na ci gouvernement bi ñu nekk nii jot nañ leen a teg ay daan yu métti métti ñoom juróomi doomu aadama yoo xamante ni dañoo bokkoon ci gouvernement bu Yaya Jammeh doon doxal li nga xam ne mooy wàllum dictature ki ñu ci gën a ràññee na bokk na ci ki fi nekkoon directeur bu agence nationale de renseignement jot na leen a daan daan yu métti métti maanaam condamné à mort ci waxtu bi nga xamante ne juróom benn at a ngi nii Yaya Jammeh jóge ci gouvernement bi ci réew bu Gambie. xabaar yi bitim réew. jóge réew bu Gambie dem ba fi nga xamante ni mooy RDC Congo wax ci waajtaay élection présidentielle atub 2023 bi ñu nar a dëgmal candidat bi nga xamante ni moom lañ investir di Martin Fayulu amaloon nañ ko foofu ca Kinsangani parti bi ñuy woowee engagement pour la citoyenneté et le développement ñoom moom jot nañ tabbu ki nga xamante ni mooy Martin Fayulu ngir kat mu doon candidat ci élection présidentielle yi ñu war a dëtmal ci atum 2023 ci fàttali nag moom mu la bokkoon na ci élection présidentielle yi ñu amaloon ci atum te ki jëloon li mel du kenn kudul Félix Tshisekedi te waxtu bi ñu toll nag kii di Martin Fayulu mébétam lenn mooy doon président réew bu RDC Congo ci atum 2023 jéqale xibaar bitim réew yi jóge réew bu RDC Congo ñëw ba fi nga xamante ni mooy réew bu Guinée wax ci ki jiite lii di junte bi di colonel Mamadou Doumbouya moom nag mébétam lenn kese la ci réew bu Guinée Conakry mooy kat fexe ba lépp luy mbalit ñu dindi ko foofu ci réew bu ginee Conakry xeex ak li nga xamante ni mooy salte bi bokk na ci li gën a fës ci wàllum liggéeyam rawatina ci nga xamante ni mooy capital bi liggéey boobu la sumb na ko ci fan yi weesu wante tamit si njàppandalu kilifa yi nga xamante ni ñu ŋànk wàllum environnement bi foofu ca réew bitim réew. jërëjëf sa nangoo ne foofu la ñu yem ci li nga xamante ni mooy xibaar bitim réew yi di li ñaan kenn ay jàmm. xabaaru euh, tàggat yaram sëriñ Moussa Kane maa ngi laa nuyu. Ngone Ndiaye maa ngi lay fay te nuyu bokk auditeurs yi di la ñaanal jàmm di ko sàkku ci ñoom xibaaru tàggat yaram yi dañu ko dooree fii ci Kaolack ak national 2. fukkeelu bëccëg bekk juróom-ñett di bëccëg bu mujj bi tey lañ koy amal bu ñeenti waxtu jotee ba teg fanweeri simili ci stade Lamine Koura Gueye KFC mu laaleeg Koumpentoum final championnat régional des na ko amal ba léegi ci stade Lamine Koura ci junior yi Kër Samba dina laaleeg Nangaan FC ci bu dee ci senior yi Kër Samba dina laale ak Mbossé demi final coupe Kosofa démb Namibie moo ci génne Mozambique daan ko benn bal ci dara Zambie génn ko xëccoo Sénégal ak Mozambique CAN féminine ca Maroc match de barrage bi nag suba la ñu ko jàpp bu juróomi waxtu jotee Sénégal mu laalek Tunisie Botswana di laalek Cameroun bu juróom-ñaari waxtu jotee loolu nag mi ngi jëm ci li nga xamante ni mooy ñaari tikk yi des ngir dem ci éliminatoire coupe du monde bi ñu jagleel jigéen ñi euro féminin ñetteelu bëccëg bi ci groupe B bi nag tey Finlande mooy laalek Allemagne Danemark di laalek Espagne bu juróom-ñaari waxtu jotee suba danañ ko laale ak Portugal bu ñetti waxtu jotee Suisse di laale ak réewum pays ba ñu daal di waxtaanee nag championnat Suisse bi door tey nag bu ñeenti waxtu jotee Young Boys Berne moo laale ak Zurich Wrexham di laale ak Bâle FC ñu waxtaanee basketball éliminatoire coupe du monde FIBA nag daal dinay jël ab ndogal ne fenêtre gii di ñëw nag des na ko amal ci ñaari dëkk ci Abidjan ca Côte d'Ivoire ak Monastir ca Tunisie ñoom ñu nekk ci groupe F bi nag gaynde yi daañu dem fi nga xamante ni moom mooy ca Tunisie mercato kii di Ousseynou Thioune nag ginnaaw bi mu jeexalee contrat ak FC Sochaux dafay desandi ci Ligue 1 bi nag foofu ca France waaye bi la yoon nag ma nga dem ca Dijon bu Oumar Daf latéral bu ñaar fukki at bii di Alpha Dionkou nag bi nga xamante ne mi ngi ci su contrat ak Grenade nag ba deux mille vingt cinq day desandi ak ñi di waa Barça Athletic ci ab able boo xamante ni dina fa defaat benn saison ginnaaw bi ñu ko gëjee gis ñaari saison gi nii nag kii di Elimane Franck Kanouté ci Ligue 2 foofu ca France ma ngay dem ca FC Sochaux nag ginnaaw bi nga xamante ni club Bruges Belgique ñoom ñoo ko abal waa France éliminatoire CAN bi ci soo ko la ñu koy jeexale gaynde yi nag daañu laalee ak Cameroun samedi ñaar fukki fan ak ñett ci weeru sulet bi ñetti waxtu jotee patek fanweeri simili ca kiri bi foofu ca biir Cameroun jongante retour bi nag des na ko amal juróom benn fan ci weeru août fii ci Dakar ci waa xiru jàmbalaay ma ngoog Ngoné Ndiaye gannaaw ba la ñaanalee kenn li ma gënoon a fa ci xibaaru li ci yéene kaay yi kaay yi L'Obs, Le Soleil, Sud Quotidien, Walf li ci euh, yéene kaay yeeg El Hadj euh, Seydina Omar Cissé ah. laan bikum François Mancabou ka ñu tegoon loxo mu faatu ca loxo takk der ya tey usmaan Sonko wax na ci xibaar yu garaaw yow seetal Sonko fa wax ne waa ji daal takk der yi biñ ko tegee loxo fañ ko wax na ko fa ngay nangu duumal Ousmane Sonko wax ne moo la yónni ngir nga amal ay jëfu terroriste ci kaw état bi ak ñi jiite réew mi François Mancabou na leen su ngeen may rey sax duma ko wax duma ko signé ndax loolu amut Ousmane Sonko ne ci la takk der yi jàpp waa fees dell ak deret ci la mujjee ñàkk ba kanam ci lees ko yéene kaay Ousmane Sonko nekkoon Macky Sall ak nguuram gi lu ji njaaga ñooy njaag ci faatuk François Mancabou Barthélemy Diaz mel ni ku la dara métti gis nga Macky Sall ak nguuram gii fay yàgg rek waaye yàgg-yàgg képp koo xam ne dugal nga sa loxo yaa raylu François Mancabou bii danañ la mës a atte fay yéex rek waaye dana xam de waa LD debout ne neexute dégg waaye faatuk François Mancabou la ña ngi ko waxee ci li yéene kaay ca turbine yéene kaay waa LD debout yi ne faatuk François Mancabou bii responsabilité Macky Sall la ak nu mën a faatoo nag ci ak nguuram gi ñooy responsable maanaam lu ji ñoom la ba tax ña ngay na leer bugaan gay dani njiital gëm bopp ne man faay sàkku na leer ñu xam li ray manka bu a kaay ne man daal faa xam ne sénégalais yu baree ñi ngi wéy di ñaawlu xanam gi mu faatoo ne fa war a leer jëwriñ ji ñu dénk wàllug yoon mel ni ku naan leen sénégalais na seen xel daal fañ koo nar a leeral François Mankabu danañ ci liggéey bi ci war ñi xeex àq ak jox ko gendarmerie yéen a kaay bi ne neexut a dégg waaye fiy teg loxo ñuy dee ci loxo police yi fay gën di bari laneen lu bari Sénégal mooy ñu police yi teg loxo tamit ba tëj leen kaso ñu daw rëcc le quotidien yéen a kaay di kat ca jamonoy Inno booy jinne ba ci tey Pape Mamadou Seck bi bokk Pastef te ñu naan yooyu ay force spéciale la bokk ñu nii fa ñoo wax na fa daw rëcc moom tamit ci jamono juñ ko doon faj leer farandoor yi benn bokk yaakaar ya ak farandoor yi yeewi askan wa ñoo doon xeex raag ba naaw ba tax mairie bu Medina Gounass fañ ko rajaxe ba mokk laas yéene kaay ñi ko xamal si du quotidien naka moo tax société civile bi fa jóg taxaw ngir ñu dakkal fitna ji ci campagne bi ku nekk am nga sañ-sañ faral kala neex dagaan baatu askan wi waaye fitna ji xeex bi rayante bi gaañante bi ngir yàlla nañ ko dakkal xamul benn njëriñ waa Gradec ak Wanep ñoo ko xamle ca biir yéene kaay ba yéene kaay bi di 24 bokk yaakaar te a woteel ku jég yi nga xam ne fa ñuy xelaat ak gént lu mënta am kaay di ñu xamal na Pape Djibril Fall gars nee nañu candidat Macky Sall la Macky moo ko ngemb Macky moo ko jox xaalis Macky la faral moo tax ni muy waxee di dal ci ñoom Ousmane Sonko ak Pape Djibril Fall bu njëkk ba nam doon waxee booba duggagut ci élection yi comme yàlla ak yàlla discours soppeeku fay raay Macky ba pare Ousmane Sonko mi nga xam ne démb moom Pape Djibril Fall fa doon tagg askan wi génnoon mars mu rafetlu ko tey fa ñaawlu génn géejawaay tët mbooloo ko topp fa ngay xool ba fa sa bët yam foo tollu dégg sonko sonko ji takarnaase mu tombeek nag anniversaire Ousmane Sonko gars di ko wëyal happy birthday ñaanal ko gudd fan ak yi ni mel waaye Barthélemy Diaz ak Alioune Ndoye ñoom it nii ña ngay ñàkkante door xeex ba ci gañ a Dakar moo ñu ko xamal lii yéene kaay na xëccoo ñaar ñoo xam ne ay socialiste lañ mooy Barth ak Alioune Ndoye léeg si ko yéene kaay ne waa yeewi seen wàll de laas yéene kaay na leen si jamono jooju Mimi Touré nee na benn bokk yaakaar fa bëgg ñu am ndam loo xam ne kenn musu koo gis ca diiwaanu Fuuta bés bi yéene kaay na ca diiwaanu Kaolack ndangaan moom waa ànd nawle ya fa ñoo mel ni ñu jaaxle de ah seen waa ji sëriñ bu bokkul ci wote député yi ñoom amuñ liste kon nekk fa ngay seet ku la yeneen coalition yi nga woteel ko ah ku amul ndey fa ngay nàmp maam ña gisul ndey gisuñ maam juñ ca Maroc coono ba ñuy dund foo ko natt na ko rawatina ña xam ne amuñ ay këyit ambassadrice bu Sénégal ca Maroc Seynabou Dial na suñu waxante dëgg sénégalais yi nekk fii Maroc te amuñ ay këyit jàpp ak lakk lañ fa bëri lool te bëri na tamit sénégalais yoo xam ne ñi ngi ci kasoog Maroc gi fañ leen a ña ñu nar a téye nag tëj kaso boo moytuwul mooy Aziz Ndiaye bi fi nekkoon promoteur moo ki rakkam ak magam ah l'observateur moo ñu xamal ne coowal bato ñetti milliards u engrais nga ñoom fañ cee jëndoon ba tax procureur fa sàkku ci àttekat bi mu inculpé Aziz Ndiaye Massata Ndiaye Aliou Diouf ak ñeneen le mandat yi ne kaay moom di ñu xamal ne njiital defar ay tontu ak i leeral li laas yéene kaay ba wax ñu ko mooy ne examen CFEE résultat yi ren Sénégal ndongo yoo jël juróom-ñaar fukki ak ñett am nañ certificat maanaam 73 pour cent le kaay xëy di ñu fàttali ne Ousmane Tanor Dieng bi mu génne àdduna ak léegi am na ñetti at waaye ba léegi mi ngi ci bopp ak xol yi fàttee guñ ko ñi war a fàttee Koulibaly mooy waa Naples ndax léegi ma ngay footballé Chelsea nar faa fekk Edouard Mendy stade yéene kaay ne loolu nar ndam tax na fa mel ne ginnaaw waa Fass ak Ndakaaru Moustapha Guèye moom giri fa ko zappe wan ginnaaw complètement leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ñi ja mooy ne ña ñu tëj kaso ca kaso kutaal ga ña ngay amal geraw da laa fee fa ñoo bañ na duñ lekk ndax ñu xoolaat seen nekkin lii yéene kaay ne ñeenti téeméer prisonnier ñu ñu tëj ca kaso kutaal ga fa ñuy xiifal fi toll nii libération moom di ñu xamal ne DG bu seen crêpe tegati nañ ko loxo man ma teg loxo tribune yéene kaay fekk fa benn xale bu jigéen fa yóbbu ci yoon benn responsable APR ca diwaanu Jurbel ndax nee na responsable affaire bi fa loo lor ba pare bañ na juru doom ji te moo ko jur moo tax ña nga ca yoon de man ma jël yoonu Malicounda fekk fa benn xale bu am fukki at ak ñaar nijaayam moo ko dóor ba mu dee aay turbine yéen kaay moo ñu ko xamal bés bi yéen kaay di ñu xamal ne Sénégal fi mu toll nii bëri na ñuy dee xam nga lu leen di rey stress bopp bu hubu koo jaxasoo xalaat bu jeex ci ay jafe-jafe àdduna kenn ca ñoom nee na man faa jéem a xaru ñaari yoon te li ko waral du dara lu ma stress bopp bu hubu ak jafe-jafe àdduna l'observateur moom it di ñu xamal ne fi mu toll nii Sénégal xam nga lan moo fi bëri ay góor yuy mbaraan ay xam nga mbaraan jigéen moo ko doon def maanaam dajale far yu bari fi mu toll nii nag Sénégal li fi xew mooy góor ñi ci seen bopp ñooy mbaraan dajale gel tey yaa ngi suba xaram gannaaw suba ndumbe ñu bëri fa ñuy jël si jigéen ñooñu xaalis bu bari waaye fañ leen di mujj war <laughs> waa ma ne Sénégal fi dégg lu ne léegi góor ñi daal ñooy mbaraan ñu ne <laughs> jigéen ñee ko nangu rek li ci euh, yéenekaay yi Choukran El Hadji euh, ponk boobee sax nag mooy jeexal euh, xibaar yi jaajëfal nañu leen bu baax a baax yéen ñi farawoon ci wàllum dëglu gi jaajëfal Haj Libaas Mbay ci xarale gi Mouhamadou Khalil li euh, ci partie euh, digitale bi waaye du ñu fàtte waa rédaction ak waa production ci njàppandalum xibaar yi euh, ci kanam tuuti nag daañ fi dikkaat rek ak waa aar Sénégal ci seen émission boobe naka ñu jagleel wàllum campagne électorale bi te ñu koy duppee une heure pour convaincre lu ni mel gannaaw service commercial bi lay doon ñaanal nañu leen mucc ak muccule jàmmi biir ak biti taw fiix ak tey siir jàngeen jëfati Le journal Ngoné Ndiaye Reine